xam ak xamle euh, ñu ànd ci ak euh, docteur Massamba Gueye euh, Mao bu fekkee noppi nga ci ginnaaw ñu jàll laata bu ay bis bi dem ci baat yi benn par benn. bi mooy ban. yéen. waaw jël dara teg ko ci bopp nit. akuk yenn la. waaw yéen la. waaw mooy li nga xam ne jëg nañ ko ci bopp nit waaye tamit nekk na responsabilité bu ñu la jox mm-hmm. waaw bu fekkente ne dañ jox responsabilité yenn nañ la émission bi yeewu leen mm-hmm. waaw baat boobu nag dafa am yenn saa yi dañuy def yenn def e ci ginnaaw mm-hmm. te du am e maanaam lii mooy li nga xam ne bu fekkee da nga ko teg ci ndig ci ci fii nit waaw da nga koo sëf waaw da ko am na dangay bootal nit ki. wala nga sëf ko wala nga gàcc ko. wala nga wékk ko. bokkul ak yenn yen boo ko déggee rek dañ ko teg ci kaw bopp. waaw di nga xam tuuti lu tax ñu ñëw tey ci yen am na baat bu ci topp Maawo El Hadj Maawo Cissé. waaw bii mooy lan. déedéet dafa am e bu ubbeeku. am am e ak e. yéen la lay jox. Ah, yéen waaw yéen. yéen yéen booy wax ak mbooloo nga ne leen yéen. Euh, yéen waaye boo ñëwee ci kër kër kër gu mag ñi ji ñi nekk ci daara yi xam nañ ko. Euh. danga am mbaar moo xam ne mi ngi ci digg kër bi. Mm-hmm. mu ñaan yéen ci digg kër gi ñu ne yéen baa ngi nii. Mm-hmm. ab yéen boo ko xoolee néegu ñax la boo xam ne du amat kenn du ko rabat. Mm-hmm. waaw dañ koy xadd rek bàyyi noonu ñu ne lii ab yéen la. yéen la ah, waaw kon kon waaw kon mm. kon yéen mbooloo mooy joxoñ am na. Ah. waaye yéen it barab booy kerloo am na. d'accord ñu ne lii yéen la. ab yéen waaw. am na beneen baat buy ñëw defe naa beneen baat waaw kay. yéene. Ah. yéene mooy li li li li sëñ bi doon def léegi yéene na xewam. Ah. yëkkati na doom ci kaw ñëpp dégg ko ñu ne yéene na ko waaw. Ah. yéene waaw yéene mbir mooy nga fexe ba ñëpp dégg ko. waaw dañ ne moom de am na ngénte waaye yéene na ko. loolu bu ko nit waxee rek xamal na yeew na xar ay laa xam doy na. Ah, lu mu ut lu ko uteeg bi ñu naan yéene nekk la. par exemple ak ñu la yéene ñoo bokk bindin waaw ñoom ay turandoo lan mm-hmm. ah. waaw ñu ne yéene nag mooy li fas ci sa ngir mu dal nit. Mm-hmm. waaw dañ ngay dégg sax ñu ne yéene néeg la borom a ciy fanaan sama maam ne ab ab néeg dafa rëy. Mm-hmm. ndax mën nga cee fanaan fanaan loo ci nit mu a déedéet yéene ab tib la. borom a koy wanaasu lu ko ca dal moom rek moo koy yëg. waaw. waaw léegi nag yéene bi am na yéene mooy li nga xam ne mi ngi jógee sa xol mu jëm ci nit moo tax wolof ne fas naa maanaam takk naa téye uh-huh. yéene d'accord waaw mu ngoog léegi nag ñett yooyu boo leen boolee am na lu muy jur jox ñu ko mu fekk ci jiba dara jiba mooy poos uh-huh. fekk ci jiba dara waaw Pape boo ñëwee nga ne nit ki damaa bëgg may ma ñetti téeméer uh-huh. mu mu mu yor ñetti téeméer. Uh-huh. jox la téeméer. Uh-huh. te ñaar téeméer. Uh-huh. ne la yéene woon naa lu ëpp lii waxut dëgg. <laughs> dëgg <laughs> yéene du fekk ci poos dara. da ngay joxe ñetti téeméer yi nga yor ba pare ne ko yéene woon naa lu ëpp lii. Mm-hmm. waaye bu fekkee waaw munoo ñëw ci sëñ bi di ko jox addiya mm-hmm. ñu laaj sëñ bi nga yor ñeenti junni. Mm-hmm. jël ñaari junni jox ko naan ko sëñ bi xeeb naa ko xeeboo ko. yéene du fekk ci poos dara boo génne woon ñeenti junne yoo joxe ba pare boo boobaa nag man nga ne sëñ bi yéene woon naa lu ëpp lii ah, nekk yéene woon naa lu ëpp lii moo tax wolof ne yéene du fekk ci poos dara hmm. waaw nit boo ko terelee ba pare mu am teraanga ju des joo ko mën a jox hmm. ba pare nga téye teraanga ji te naan ko yéene naan lu ëpp li waxoo ko dëgg hmm. yéene fekk ci poos dara waaw yéene da nga fekk la ca poos jeex ba noppi yéene soog a ñëw waaye yéene du fekk poos fees moo tax wolof na yéene du fekk ci poos dara waaw nit jiba mooy poos moo tax ma indee ko nii waaw ndax baatu jiba boobu laa bëggoon mu jib uh-huh, uh-huh. waaw léegi nag jàppal boobu ne yéene du fekk ci poos dara bu fi kenn demati ci nit koo war a teral wala koo war a defal uh-huh. koo war a jëndal ordonnance mu jox la ordonnance junni nga yor ñaari junni jox ko juróomi téeméer naan ko yéene naa lu ëpp li waxoo dëgg boo ko joxoon nag junni ba ba pare jël beneen junni téye yow fekk ordonnance am mat bu boobaa yéene woon naa lu ëpp lii. dégg ngeen ko yéen dégg nga yéene du fekk ci jibe dara dégg nga. xam nga man xam naa. waaw yàlla na du fekk ca poche ba dara. waaw voilà. <laughs> jërëjëf ki <laughs> barki démb tamit amoon na euh, amoon nañu euh, xëccoo. polémique ci mm-hmm. ñun ak mm-hmm. ñun. baatu ñun. ak nun mhm. man ma ni ñun laa xam mhm. dañ ma jàngal ni su ma ko dee bind damay bind ne bi teg cilde ci kaw keneen ki itam am xam-xam lool mhm. jëlee moom it xam-xamam ci beneen borom xam-xam académicien la nee na ne ma ñoom nun la ñuy wax te kenn du ko bindee ni ñu ko bindee normalement kenn warta wax ñun mais nun la ñu war a wax waaw xam nga dafa am yoo xam ne ñun gëstukat universitaire ñu ne normalement d'accord dañ koy dañ koy moytu ndax gis nga gëstukat borom xam-xam day maandu. Mm-hmm. waaw ndax fii du prison bu ñuy tëj nit. parce que science sociale lañ nekk. te science sociale fi sa gëstu toll rek foofu ngay yem. Mm-hmm. ndax am na boo xam ne dañ ne ñun de duñ def lii. Mm-hmm. nga weddi ne amut nga dem def téeméeri dëkk ñëpp naan ñun day nekk une vérité linguistique. parce que la vérité linguistique c'est la vérité du groupe. waa baat dina tuxoo fii ñëw fii. loolu la ñuy wax les mutations linguistiques. donc baat dina tuxoo fii mhm. ñëw fii mhm. am na ñoo xam ne dañuy bëgg téye cosaanu baat te baat du am cosaan day tuxu xam nga danga dégg tey ñu ne nun de mhm. nun de danga am na boo dem ci fu bëri ci njaamur da nga ci baawul danga nga dégg nun nun mag ñi de nii la ñuy def waaw nga am foo xam ne dangay ngay dégg ne ñun ñun ñunu neen kon tey munoo taxaw rek ci bu fekkee pratique linguistique nangu na ko rek. Mhm. ñun dañuy maandu ci ne kon loolu communauté bi agréé na ko. te linguistiquement ñun li ñu analyser mooy nan la ko communauté bi def. au ñu taxaw ñun naan léegi am na wala amul. Mhm. dañuy décliner ne am na ñaari prononciation ñu lijjanti nag. Mhm. lan lan moo jur bii. ñun loolu mooy science pour ñun. voilà donc pour sama gars yi la quoi sama sama gars yi ma jëlanteel fan yi Ibrahima Yàgg Pape Samba jara ak Pierre Da Silva léegi ñoom laa jëndee Mao Cissé euh, Pape Samba Thiam. ak euh, tonton Mac voilà donc loolu c'était une petite